docteur Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi leen lay nga nekk euh, secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé de l'action sociale affilié à la CNTS/FC euh, depuis quelque temps ngeen nekk en mouvement d'humeur euh, lan mooy seeni point de revendication waaw li ko waral moo di dañ nekkoon ci euh, euh, plateforme bu déposé woon euh, gouvernement bi yoo pour ñu waxtaan am na yoo xam ni dafa concerné ak yeneen ministère maanaam juróomi ministère bokkoon nañ ci plateforme mais li nga xam ni moo jiitu woon mooy amuñu woon li ñuy wax naan premier ministre donc waxtaan bi dafa am côté yoo xam ne doon sooxe parce que tout simplement mënoo woon faire euh, nga teewloo yeneen benn ministre mënul mënul teewloo yeneen ministres yi donc loolu moo indi jafe-jafe mais terewul signé woon nañ benn accord ci points yi nga xam ne ay points à incidence maanaam ci mais yokk bi ñu ko defee dafa concerné rek fonctionnaires yi mais ñu gis ni santé li fiy liggéey ñeneen ñi ngi ci collectivité territoriale yi ñeneen ñi ngi ci euh, ñi nga xam ne ñooy hôpitaux donc ñooñu ñëpp duñu ay fonctionnaire te état bi euh, war nañu mën a jàppale parce que beneen euh, collectivité territoriale mooy mooy mooy lu ñu décentralisé beneen bi mooy euh, li nga xam ni mooy mooy collectivité territoriale comme ni ma ko waxee beneen bi moo nekk ci hôpitaux yi parce que établissement public de santé boo demee tey un quart personnel bi ñooy nekk fonctionnaire ci hôpitaux yi ñu ci des ñëpp état bi moom moom hôpital ñoo leen di fay ñu ne nañ ñu accompagner boobu au moins def nañ effort ba génne huit milliards na huit milliards bi ñu ko génnee ñun à notre grande surprise ba ñu defee lu dul fay nit ñu def état yi dañ ba ci biir gars yi wax ni non nanu fay ñi bàyyi ñi ci def ba finalement ñanu fay tuuti rek la ba huit milliards yi un milliard neuf cent la ci utilisé mu des presque six milliards mais ñun ñuy suspecté ni gars yi yooyu ñu def yëpp. pour jël alal yóbbuwaat ko pour mu def ko ci seen fonds commun parce que li tax ñu tax ñun suspecté leen ñooñu nga xam ne ñoom ñoo empêché bi ñu toogee ñu ne xaalis amu ci réew mi ñoom ñoo toog créé seen indemnité yoo xam ni dem na ba presque trois cent mille pour dindi nit te loolu dafa di loo xam ne aussi teguñu ko ci mbirum équité ak donc état moom moo demandé woon ñu def euh, étude sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique bu gisoon ni am na ñoo xam ni euh, seen salaire demewul noonu donc il fallait impérativement que ñu corriger mais gis nañ correction bi ñu def nii dafa gën a aggraver mbir mi dafa gën a aggraver mbir mi cest dire dafa gën a aggraver activité yi donc euh, maanaam écart bi dafa gën a ngand loolu ñu problème ñu ne euh, tamit ñu signé accord parce que ku xam nekk xam na ni plan Sésame ak ñi nga xam ne euh, xale yu am dara cinq ans la dañuy faj ci structure bi ñu faj ñu dem ba amee hôpitaux yi boo xam ne toll na ci presque euh, ñaata lu toll ci vingt milliards vingt milliards vingt milliards bëri na moo tax tey jii ngay gis problème am di toog ba nga xam ne amuñu réactif parce que hôpital principal yoraloon nañ leen presque ay trois milliards looloo xam ñu accord ñu ne leen ko def am na yeneen point de revendication yoo xam ne teg nañ ko parce que def na hôpitaux yi li tax ñuy sooxe état daf leen war a accompagner ñu gis ni depuis fukki at ak juróom montant yi ñu doon joxe ci subvention da ci gis hôpital boo xam ni euh, budget wu neuf milliards lay yor mais subvention yi ay un milliard cinq cent lay doon lu ci des yëpp <coughs> hôpital moo ko amee bu fekkee ne nag da am fukki malade yoo war ñëw ñett ñi rek ñooy fay seen xaalis juróom-ñaar ñi euh, ay imputation budgétaire la wala plan Sésame te duñ ko remboursé day poser problème loolu moo xew ci structure yi donc loolu moo indi jafe-jafe yi ci yenn hôpital donc ñun ñun dañu demander aussi au niveau au niveau de l' état ñu rembourser de parce que tey jii da ngay dem hôpital bu mel ni Pikine subvention bi leen di jox matul quatre cent millions nga dem hôpital mel ni hôpital Grand Yoff ñu leen un milliard lan moo tax ñu jox un milliard cinq cent hôpital Grand Yoff jox hôpital millions te Pikine ci biir département bu mag la nekk donc amul critère cest affaire xaritoo affaire yaa neex la ñu ne ko définir mu am i euh, revendication yoo xam dafa concerne ministère de presque cent di revendiquer amuñu indemnité de logement ñu toog état dinañ jox indemnité de logement mais bu mu ne dañu jox indemnité de logement mais ñun gis nañ ni indemnité de logement yooyu bi ñu ko génnee lan mooy problème bi bi ñu génnee de logement yi ñu ne dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jox euh, temps yooyu euh, kii moo fi nekkoon Diène Farba Sarr comme ministre de l'urbanisme mais Boun Abdallah moo doon premier ministre ñu ne bon mënuñu leen jox indemnité logement mais dañ leen jox ay terrain mais gis nañu ba ñu daggee terrain taka xool paay muy cent mille logement ba tey ñu ngi xaar ba tey kenn joxuñu loolu nag dafa nekk loo xam ne aussi ñun mënuñu ko comprendre booy xeex ak nit da nga dem jox ko li nga xam ne moom moo ko moom moo ko moom moo moom moo wala moom moo ko moom dem na ci mbirum action tey jii boo xoolee définition dañ ni nit ki il faut dal ba pare mais nit day ñëw hôpital ñu ne la dal la war a ñu ne opération bi quatre cent mille la wala cinq cent mille koo xam ne bu xëyee suba amul lu muy lekk mais foofu la njëriñu action sociale amee bu fekkoon ni action sociale xaalis bi jël yëpp yóbbu ko ay ministère de la femme ministère de la famille ministère du développement communautaire nga xam ne ay bourses familiales lañ koy joxe su fekkoon ni direction action sociale am na doole malade bu ñëw hôpital boo amul loo faye même bu dee coût bi un million la moom dina ko jël en charge mais yooyu coquille vide la la plupart xaalis bi jëm ci action sociale ak ndimbal yëpp ay ay ministère politique lañ ko yóbbu et loolu dañu lu baax nañ ko delloowaat ci orthodoxie ñu am continuer ci ministère action sociale dem na ci li ëpp important mooy ressources nag mooy li nga xam ne tey jii formation la d'abord formation diplômante ñu mën a former nit ñi juróomi at a ngi di e des formation en même temps recruter wuñu aussi dans la fonction publique gis ni bërki dem ministère de na concours pour former ay enseignants mille deux cent nga dem police ñu ne recruter nañ mille personnes mais ñu ne la benn nit muy infirmier wala sage-femme wala yeneen corps yu ubbi nañ ko pour former loolu aussi dafay nekk lu grave ñu ne euh, bu ñu jógee ci loolu dañu fexe ba nga xam ne collectivité territoriale yi na leen fay aussi euh, comme ni ñu ko amee ñiy liggéey ci yenn centre de santé yi wala structure wala yenn hôpitaux nga xam ne maire ñoo leen di gérer leen fay lu ñu fay seen moromu moromu fonctionnaire en gros daal loolu mooy euh, nekk ñuy demander loo xam ne aussi premier ministre ci impliqué parce que bu fekkee premier ministre impliqué rek yeneen ministres du ñëw donc moom moo war a indi parce que ministre la santé waxoon nañ ko nee na bindoon na lettre ministère yëpp ministres yi jot nañ ko mais ministre xam nga moo ko ministre mënu ko imposer mu toog ci négociation parce que du kilifa tey jii bu premier ministre jëloon coordination boobu def ko woo ñëpp nit ñi dinañ trouver des solutions et le possible. bi lan la docteur Cheikh Seck lan ngeen fas yéenee def. encore non li semaine prochaine ça veut dire que ni bu fekkee ni dara xamul dañuy ci grève bi dinañ am yenn action yoo xam ne dañ ko mënee te loolu moom bi di teg tànk te loolu que ñu xam ko. parce que hmm. ñun nag buñ sañoon duñu nekk fii naan ñu ni grève parce que suñu place du ci biti suñu maladie la ki am li ko gën a métti mooy mu toog malade am feebar mu war ko faj te faju loolu aussi du lu nag dañu obligé parce que tey jii gis nañ ni lu bëri lu am bind nañ yoon. def ay revendication alt nañu weer a ngi nii avant ñuy grève grève bi grève nu mais xanaa ku la may weer te mi ngi woon nekk i période grève war ko mën a toog mën a waxtaan ak moom mais boobu ba tey ñun gis nañ ne dara mais mais ñenn ñi jàpp nañ ni ak sante ni mu amee solo yéen docteurs yi waroo leen a grève loolu lan ngeen siy ah, tontu. loolu mooy règle loolu mooy yoon ñun waruñoo waruñoo waruñoo grève mais waruñoo grève boo déggee ñu koy wax c'est-à-dire dañuy anticiper. c'est-à-dire tey jii man sama kër bu ma fa nekkee su fekkee ni ba ma fanaanee biig avant ma yeew wàccal naa sama soxna dépense am du ma xëy suba ñëw di ko laaj naan ko añ añ ana añ bi wala ana reer bi parce que ci naa fa dépense cest diir dire état moom mooy garant de la politique de santé mais état bu toogee tamit ñun dañoo yori kër yori njaboot war leen a dundal kan moo yor responsabilité boobu du état ah, donc le premier responsable c'est l'état bu état defee leneen problème bi rek bu état deful leneen aussi duñ rek donc ñun li ñu gënal nit ñi wax nañ dëgg ñun waruñoo grève am na dëkk yoo xam ne doo gis grève santé. parce que état du xaar ba gars yi revendication. foofu la ñu war a am na entreprise xam ni. signé nañu ay convention yoo xam ni doo fa dégg ay grève parce que ñoom seen wàllu bopp patronat bi day anticiper ci lu bëri mais su état toogee mu ne ñun nañ def étude sur le système def gën a tumuranke et pourtant santé ñoo ëpp njàng ñoo ëpp responsabilité ñu ne dañuy yokk ñu yokkalaat ñëpp lañu yokkal ñu leen ñu ko ba pare ñu lañu yokkal sax ñu koy wàññiwaat waaw nga léegi ñun dañuy toog dund ah léegi loo xalaat ci rapport Cour des comptes par fonds force Covid 19 yi lu ngeen si xalaat seen secteur la carrément voilà. rapport Cour des comptes bettuñu ñun dañ koo wax. depuis deux ans ñu ngi wax problème boobu dellu nañ ko waxaat nañ ko donc lii du lu donc moo tax boo xoolee épilogué wuñ sax lu bëri loolu loolu la demee parce que ñun alerté woon nañ bu ñu commencé génne milliards yi la gars yi jël parce que mënoo concevoir nga ñëw ci système santé euh, ñu ne épidémie la ñuy gérer hôpital mosu koo gérer loolu mosu am mais parce que bi ñu daan gérer épidémie muy ay rougeole muy coqueluche wala ay méningite ñu nekk seen bureau ku nekk euh, sa paaka di dagg noonu lañ ko doon defee yemuñu ci état d'âme mais loolu moo feeñ parce que mënoo toog nga ni benn nit lan lay def ay restaurant la doon nga ñëw mu am cinq sociétés nga ñëw marché yëpp ko jox ko ba mu toll ci quinze milliards te li gën mooy tey jii boo demee ci hôpitaux yooyu nan la wax équipement yi ñu jënd ak matériel man de gisuma man gisuma ko man man gisuma ko sama hôpital gisuma ko ci beneen hôpital donc fan la xaalis bi dugg donc nan delloo xaalis bi nit ñi loolu mooy wax man dama ne la ay rapport yàgg nañ ko fi def of nag génne na fi ay rapport ba pare wax ni procureur na jàpp ñooñu nan kenn jàpp kenn rapport inspection générale d'état génn na fi ba tey bii cour des comptes aussi yàgg na fi mosoo mujjul fenn man dama gëmul ni dina mujj fenn parce que tey jii nan lañ ko dugal ko koso dafa ñetti weer waa léegi am nit ñi ay seen opinion lañ leen tëjee koso ñi sàcc ñi leen di bàyyi ñuy dem loolu mooy problème bi et loolu moo xew ci réew mi situation yaakaar ni justice dina si def dara mais doodu dem fenn parce que que tout est politique dans ce pays là acte yu ñu posé c'est politique c'est pas acte acte administratif du acte du acte état est-ce que xam nga baal ma la acte bu ñu posé c'est politique c'est politique waaw mhm. ah, loolu tax mais su fekkoon ne état la ñuy fonctionner dina am problème yi mhm. docteur Cheikh Seck Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité surtout jërëjëf merci beaucoup voilà may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale affiliée à la CNTS-FC.